di ñaanal ñëpp jàmm daal. këlam incha allah. <laughs> mu lay maas ma lay jaajëfal bu baax a baax comme ni ngeen ko gis gisee moom soo kaana la ñuy daal di àndal eh, ci bilee waxtaan nañ koy daal di dooree ak ci mbirum Ousmane ko gis nañ ne jamono jii nii eh, mbir yi mi ngi dëgër lool lool lool ndax eh, ki nga xam mooy mandataire am dem na jëli ay fiche de parrainage ñu daal di koy gàntal ni ki dee mu tey mu delluwaat tamit ñu daal di bañ lan nga jàngatee leen ni mel. oui Sénégal ñëpp xam nañ nañ kon ñoom Sénégal ñoom ñoom di woote loi gëmuñu suñuy loi quoi loolu lañ mun a wax. boo demee ba nguur juge joxe ordonné on juge juge moo gën a fort looy gis parce que juge am na droit sax bu président bi wala ministre bi wala keneen ak keneen tegul si yoon mu woote mandat de dépôt gars yi jëli ko. Mhm. juge am na droit boobu. te nul n'est au-dessus de la loi yoon kenn nekkul si kawam. Mhm. tey boo demee ba juge jox ordonné lii ak lii te juge boobu dëgg ko tax a jóg te juge yu dëkk bi la tey ñoom ñu ne dañuy dem jëli ay. papier yoo xam ne waa Pastef fa ko moom. ah. Mm-hmm. ñu ne ñoom duñ leen jox loolu jaay doole la rek. Mm-hmm. ñëpp yàgg nañ ko gis yàgg naa leen ko wax Sénégal loi bi dañ koy dañ koy loo parce que loi bi daa am ñoo xam ne dañoo ne ñoom ñoo ko féetewoo ñoo ko moom kenn moomul yoon. kenn moomul dëgg. xam kan moom moom yoon ak dëgg suñu borom. te suñu borom ñëpp la fi nekkal da nga koy tooñ sax nga jàdd jégalu ko sax mu baal la parce que yàlla moo fonk doomu aadama. sàkkamtuma mm. nag nguur boo xam ne saxul. ay nguur ay président yooyu yëpp day wàcc ay deuxième la ay ministre ministre la yooyu yëpp amul banne aadama moo am wareefu banne aadama mhm. ak nguuru yàlla ngay def dëgg di woote dëgg di toléré di pacifique di jéggale bu ko defee yow boo génnee àddina balaa ngaa génne àddina sax da ngay am jàmm mhm. parce que boo melee noonu nit ñi boo génnee àddina yàlla na yéex dañ lay njortal lu rafet di lay ñeene lu baax di wax seen gémmiñ di la ñaanal loo xam ne mooy loolu mhm. mais am n yoo xam ne amu fi parce que Sénégal nañ foo xam ne nootaanga bi dafa deñ kenn moomul loi bi. Mhm. dalee ko si kaw ba ci suuf nguur beeg ñëpp ñu ne ñoom a yem même pied d'égalité lañ. ku tegul si yoon dañ la war a teg si yoon ku tegu si yoon dañ lay ñaax jàppale la. Mhm. mais pas yow yaay ministre bi wala yaay ministre de la justice wala yaay ministre de rek ay ordre ngay joxe da ngay def loon ne ah mhm. nañ xoolaat seen bopp surtout alkaati yi homme de tenue yi. Ah, ñoom gis naa diw dafay ñëw di jël si affaire am ñu naan du dugg. loolu dafa ñaaw si homme de que nguur buy jeex nguur buy jeex gaa yi nañ ci sóor seen bopp bu ñu nangu kenn di la baale si ay ñaawteef ba nga koy ñaawteef rek sa waa dëkk. Hmm. parce que loo gis day jeex ñii ay 4 mois moo leen des 3 mois te na sax ñoom nañ koy fekkee. parce que nothing lasts forever kenn xamul luy xew suba. Hmm. promise bi yàlla rek ko xam. Hmm. man mënu ma la wax man tumaroo dinaa dund wala yow nga ne ma tumaroo dinaa dund gars yi nañ xoolaat seen bopp dunia dafa jeex. lundi lañ commencé monday tey la kan friday. kon loolu kan moo ko mën a tee amul. dëgg la mënul ne. Mhm. voilà comme ni nga ko waxee euh, mu nekk ay injustice wala ay mbir yu bëri yoo xam ne Ousmane Sonko mi koy dund sànq yaa ngi koy wax sa biir kàddu que ne bi moo ordonné te nul n'est au-dessus euh, de la loi loolu la yoon wax te ñi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk suñu autorité sax ci lañ daal di bokk mais su suñu gisee Ousmane Sonko ak la justice depuis 2021 ba léegi Ousmane Sonko ay persécution mi ngi koy dund. injustice aussi euh, ñu ngi ko koy teg suñ ko mënee wax parce que li ñu koy teg ak li ñuy teg ñeneen ñi c'est différent mais loolu tamit nekk na mbir moo xam lépp rek politique war ko est-ce que jàpp nga ne loolu mbirum adversité la. non loolu dafa dépassé loolu sax parce que doomu aadama am na fooy toll sax am na loo xam sax da ngay def yëfu doomu aadama parce que nit nit rek ngay doon. parce que tey boo feebaree ngay xam ne mënuloo sa bopp ay nit ñoo lay ñëw jàppale soo nekkee sa gàlle sonn sax sa yaay ngay woo wala sa papa wala say doom. est-ce que am na loo xam kon am na loo xam ne wareefu doomu aadama la nit nag am na loo xam ne waroo di ko teg nit parce que ay fitnaal yooyu yëpp yàlla teguñu ko mm-hmm. parce que ñun yàlla tooñ bu ne lañ koy tooñ mm-hmm. surtout ñoom njiit yooyu ñoom ñu si bëri seen nguur boobu ñu si bëri dañuy signé ay ne lii lañ dem fenn signé ay pacte yoo xam ne sax ñoo xamuñu lu ñu signé te mm-hmm. yàlla du leen sax déglu da leen seetaan parce que yàlla du ko mën a seetaan kon moom lu toll ni Ousmane Sonko moom muy Sénégalais juddoo fi màggee procureur beeg ministre beeg benn lañ ñoom. kon ñoom war nañ xam ne loo gis day jeex. nit ki loo ko teg teg teg te suñu borom teg ko sa kaw lay këpp. parce que Ousmane Sonko li nga wax deux mille vingt et un ba léegi. Mhm. ñu ngi koy fexeel feebar jug na wër na lacrymogène nañ ko barricade nañ ko. grève de faim na ñuy yaakaar day dee ba tey mu ngi dund suñu borom moo namul loolu si moom te yàlla na yéex kon boog ñoo xam ne ñoom duñ ci lenn ok duñ si dara te ala kulli aali yàlla lu mu wax. Mhm. ak yàlla lu mu yéene ak nit ñi lu ñu bëgg ak lu ñu yéene seen xol. Mhm. mooy lan moom lañ yéene mu nekk cinquième président la république bu yàlla na loolu kenn mënu si dara nañ teg seen percussion lu nee percuté lu nee dara comme ñun suñu genre rek ñun ñaataane ñu ñuy jeel. Mhm. boo génnee sax moom la te ñuy ñëw wax ak yow nga am loo wax sax ñu ne dañ lay menacer wala nga ne kii sax dañ lay jàpp police cinq jours defeere nañ la defeere nañ la. téye nañ la fa lu yàgg nga taxaw tribunal. Mm-hmm. ñu renvoyé la nga taxaw tribinal ñu bàyyi la nga dem parce que amoo loo def. ok sàccoo rayoo jëloo alalu jàmbur waxoo ñaaw defoo benn injustice. Mm-hmm. Ousmane Sonko noonu la fa demee de. kon nil munul def yàlla rek a mun a def tey bu ñu xoolee deux mille vingt et ba léegi. Mm-hmm. ñu ngi koy topp te mille 2021 boobu ay moor am na si de. effectivement ba ñëw ba 2023 ay moor. léegi ñoom bu doon ñoom ngàcce ngaalaama la ñuy wax si ñoom. ñoom nañ def xool enquête yooyu ay moor yi am parce que bakkan moo fort. dëgg surtout am na ay bakkan jullit te yàlla wax na jullit kenn amul droit rey jullit am na waa kër instant ibnu Mariama am ñoo xam ne ba léegi xamuñ seen doomu fi ñu ne. Hmm. am ñoo xam ne ba léegi booy ñu ngi leen jeel si jeel bi xamuñ sa gàllay sa xamuñ ne ñu ngi si jeel bi wala ñu ngi dund lu ba tey. te pourtant nguur bi fi jógee deful loolu nguuru Ablaye Wade ñoom ñenn ñi fa lañ nekkoon. Hmm. ba ñu suñu njiit bi fa la nekkoon pourtant defuñu loolu. Hmm. dafa jeex mu jeex benn yoon lañ commencé tàngal peuple bi jug ñu bàyyi. kon ñoom fu ñu toll nii xam lu ñu war a def. lu war a def nekk ay démocrate nekk ay démocrate parce que ëpp dafa tuuru. Mhm. loo xam ne ku deret am ak ay rey rek foofu ñaaw na. Mhm. parce loo gis. day jeex te ak loo gis dañ koy teg si yoon te yàlla da koy teg si taabal bi. ok ne la yow diw yaa yoroon njiit bi yeeg lii dret bi yeeg bii say tur la wala say loxo wala say tànk te boobaa di ko lay borom te balaa ngay dem nga koy looy borom bi kon doomu jàmbur mi nañ ko bàyyi si jàmm parce que Sénégal nekk na dëkk boo xam ne metti na metti boo xam ne mooy lan. Mhm. soo génnee di wax dëgg sax ñu ne dañ lay ërtal wala dañ lay buntu xatal ñun boo ñu ërtal ërtal du ñu ragal loo ñu buntu buntu xatal du ñu ragal dëgg. parce que dëgg ñun fa lañ puujoo si dëgg lañ ñu juree si lañ ñu yare parce que yonent bi salaahu alayhi wa salaam moom mooy gën gi mbindeef mm-hmm. xare na badar ndax dëgg woor na ndax xare ndax dëgg mm-hmm. xiif na ndax di wax dëgg mm-hmm. te yàlla moom la def gën gi mbindeef sàngaduma ñun ñi nga xam du ñu dara mais on dirait que dëgg dafa réer jamono ji bi Sénégal non réer na si ñenn ñi mais si dëggkat yi du mos a réer parce que ñun dëgg mosul réer si ñun ñun jullit képp kuy jullit ah, di buujoo yàlla ah di tiitaroo yonante bi bu dëgg réeree si yow rek kon war nga xoolaat sa bopp mm-hmm. mais ñun dëgg musul réer si ñun man sama genre de ak sama mafia mm-hmm. boo xoolee peuple bi jeunesse bi yëpp dëgg musul réer si ñoom parce que booy lu ñuy xeex ak lu ñuy manifeste si pacifique dëgg parce que dañoo sonn mm-hmm. parce que town bi mënuñu nekk si town bi how many years ba léegi ñun mënuñu am dara te kenn dàqu ñu wook day ba day dañuy wook morning time evening night time dañ koy wook gars yi dañuy nekk ci bureau yi duñ joob dara di fay ko ay bion exemple kon gaa yi bu benn bureau de jógee fee nekk foofu mm. am ay diplôme am nekk major yor su dëkk bi pendant quinze ans mu si jël dara mm. kooku bu ñëwee dañu tegal ay plan yoo xam moom lañu doon teg dañ koy dooleel looloo waral Ousmane songo promise la rek mm. yàlla mooy xool lu ko neex teg ak ku ko neex teg ku nekk nag da am sa promise ñun suñu promise jeunesse bi mooy boré bi mm-hmm. Ousmane Sonko kon moo waral parce que kaana su ñu ko dégg dañoo ko dégg muy xeex ci wàllu injustice de manière générale mais su ñu nee ba bracelet bi ñu fekk ko ci yow kon cela veut dire que ne euh, dem nga ci côté Ousmane Sonko. patriote laa bu mag bu mag patriote bu mag laa bu mag. I'm a real patriot. I'm born into this town. I'm dying to this town. I represent Sénégal. I love Sénégal. I love to my people. Mhm. man noonu laa mel man bu mag képp kuy tiituroo Sénégal si dëgg di wax Sénégal si dëgg. Mhm. moom nga ma. man képp ku may jéem a teg ay affaire de chantage ay xaalis wala ay korom. moomoo ma man si mbedd bi laa dëkk. foo mu fekk maa si street bi ñun fii soo ñëwee si mafia bi ñëpp am nañ fi place. Mhm. booy nekk APR yi sax am nañ fi place. sama sama mafia lépp fi am. ku nekk ak sa mentalité la rek. man foo nekk dum la fa jëlee loo man fu ma nekk bàyyi ma fa. Mhm. yàlla moo xool loolu. ok jullit yi ñoo ëpp si àdduna bi. mais jullit yi lañ gën a sonal. dëgg la wala dëgg jullit yi ñoo ëpp si àdduna bi black yi ñoo ëpp tur si àdduna bi black people lañ gën a sonal monde bi ñaar lañ gën a sonal mm-hmm. l'islam ak black ok man si côté boobu laa bokk am a black boy am a real muslim am born into the black am born into the muslim te am dying to black and muslim kon boobu foofu laa buujoo war a képp ku ñëw si Sénégal di woote dëgg fii ak ma gis yow ngay tere système corruption parce que ñun bokk nañ si le pays le plus corrompu au monde Sénégal malheureusement Sénégal ça fait partie des pays les plus corrompus on monde loolu yoon la dëkk boo xam ne 17 million lañ ah 17 mhm. million moyenne d'âge bi jeunesse bi ñëpp ay booy lañ mais kenn mënu fi am dara te ñun ñoo ëpp richesse si monde bi États-Unis plus de ay 700 millions d'habitants lañ mhm. corruption amu fa te ñoom seen richesse yëpp si ñun la jógee mhm. ñun ñoo leen ëppale or am nañ jamaa fer loo xalaat effectivement ñoom lépp fii lañ ko xam nga lu ma wax. Mhm. kon moo tax ñun ñu nekk les pays les plus corrompus parce que lépp xam la système de système bi la rek régime bi. depuis 1960. nekk si kaw ñooy nekk si kaw ñuy joob si suuf ñooy joob si suuf duñu mës a mhm. tekki. Mhm. wala duñu a am loolu nag dafa jeex. ok xam nga dañuy naan ñoom si tubaab Victor Schœlcher moo aboli l'esclavage. effectivement loolu la ñu wax. ah bon lu dëgg bilaal moo njëkk a toog yéeg si kaw nodd. te nit ku ñuul la. daal loolu duñ ko wax. Bilal moo njëkk a yéeg si kaw nodd allahu akbar gars yi ko dégg fu ne. mais xam lu ñu lay naa la Victor Chevalchie moo njëkk a abolir l' <laughs> esclavage. mais ñi gëm ay affaire yooyu noonu yooyu la ñuy gëm mais ñun. Mhm. Bilal moo njëkk a nodd kon makaama noir fa la njëkk a commencé. ok est-ce xam ne noir moo njëkk a nodd. Mhm. kon boobu ñun black yi ak ñun sénégalais ak africains yi ñu fier si Ousmane Sonko. fier si lu muy géem. parce que ñun bu ñu dalee am njiit ba léegi ma laa la benn affaire. Sénégal bi mu dalee am njiit ba léegi. Mhm. depuis jamono yi 1960 yow journaliste bi. Mhm. est-ce que bu gis suñu njiit yi yor Coran wala Bible bi di laax alxuraan wala jàng si Bible dama lay kon ñun bëgg nañ kooku kuy wax aaya bi di ko tari di ko firi. Mhm. wala di wax si Bible lii. bëgg nañ parce que Sénégal ñaara am. ak chrétien. effectivement soo boolee ñaar yooyu. bëgg nañ la. parce que kenn mënu fi discriminer. est-ce que xam nga lu ma. discriminé bi fan la si ay lan race. te loolu mosul am Sénégal. mooy mhm. seetlu lim la wax bi depuis 1960 ba léegi. waay mos nga gis ñun suñu président bu taxaw si jumaa bi ne mooy jiite àjjuma sénégalais yi. Mm, mm. soo ko dégg. Mm, naa mos nga dégg président bu taxaw vendredi bu taxaw Korité wala Tabaski ne mooy jiite. te pour pourtant président yaay njiit dëkk boobu bu tàkkee yow miy njiit bi la bu neexee yow miy njiit bi la. dëgg loolu la wax. Mhm. kon ñun suñu président bu ñu defee loolu defuñu loolu defuñu loolu ba kii ñëw def loolu di tara ay alxuraan di wax bible bi di dem di jàng ay xasida ay tay siir ak affaire yooyu noonu. Mhm. kooku dañ koy bëgg. ok parce que dafa woote dëgg ba pare yor kaaraange dëkk 15 ans li sëriñ bu mag bi di wax 15 ans yor na ko mu si jël dërëm ñoom ñëpp wax na leen kon kooku gënaluñu foofu rek corruption amu fa. ok parce que booy jël loo moomul rek foofu dóor la. ok corruption kon dañoo seetlu si kéem boobu. we tie for the game we don't need this kind of people maanaam daal rupture ngeen di woote système bi nga xam ne moom mooy jël alalu askan wi di ko lekk ñoom seen biir ñii di am ñii duñu am moom ngeen bëgg a pour que loolu daal jeex finish over na mhm. day jeex ci 24 years bi lay jeexee ok day jeex parce que xanaa moom àdduna dëgg la commencé mhm. dëgg lay jeexee parce que nit balaa ngaa juddu dee la njëkk a sàkk après ñu sàkk lan dund te boo dundee da ngay dee you mm. must be die must be live after live da die da ñaan yàlla nag ñu ñaanal la si jëf yu rafet ak xol bu rafet mm-hmm. nga dem àjjana ok foo gis loolu ngay bugg te ñaan nga yàlla bu ñu lay suuli mafia bi yëpp topp la mooy sa waa dëkk say mbokk say door mm-hmm. ku ne ñaan na loolu est-ce que xam nga lu mm-hmm. gars yi nañu xoolaat seen bopp bu ñu xoolaatee rek soriwul tuuti wala seen kanam tuuti rek ñu xam ne yàlla moo yor lépp ok mbirum moo la benn Mm-hmm. tey àjjuma la dama siy wax am sens. man maa ngi ñaanal palestiniens yi. Mm-hmm. parce que man am muslim. Mm-hmm. man am naa droit ñaanal samay mbokk jullit. effectivement parce que tey lu ñu def foofu. man mi saraf moom métti. parce que man laa ñu jàpp julit yi di jël ay bomb di leen dóor ba si hôpital bu ñu nekk ñu koy dóor te pourtant ñun suñu njiit yi ñoom. ñaawluñu ko te pourtant ñun am nañ njiit am nañ ay njiit yu nekk si ay. lan si ay structure gouvernementale ay ministère ak ay ministère de l'intérieur ay yëpp fu ne la ñuy dem fu ne la ñuy dem te pourtant loolu ñaawluñu ko te pourtant ako ñoo war a ñaawlu lan moo tax ñuy xaaree leen dëkk yi di ko ñaawlu sax te ñun ñoo bokk benn Afrique monde bi ñëpp koy ñaawlu tubaab bi nga xam ne sax ñu duñ jullit sax dañ koy ñaawlu Sénégal tey soo taxoon génn fi na ngay créer manifestation Free Palestine ñu ñëw ne dañuy dal sa kaw parce que am nañ benn espoir sax ci juif yi hmm. ñan ñooy juif yi juif yi ñooy ñan ñoom ñooy jàpp jullit yi di dóoraay bomb di rey yàlla nañu yàlla àtteeg moom gis nga foofu. Mhm. foofu li fa ne mosquée boobu alaska boobu. mosquée boobu di wax mosquée boobu man judduma fekke wama mhm. kon foofu dëgg rek a fay am. di ñaanal nag palestiniens yi ak bépp doomu aadama ak jullit yëpp. Mhm. yàlla may leen ndam si kaw lii parce que tey Palestine. soo xoolee seetaan télé sa seera day daw. wala nga seetaan si réseaux sociaux sa seeram day daw. est-ce que am na mais lan autorités yi ñun bu ñu génn def marche ñoom ñuy aalu moo dama la Sénégal lu dëkku yoon Sénégal lu dëkku yoon parce que tey France dañ doon déem a tere loolu mais procureur bi moo joxe nin am na droit marche def ay rassemblement pacifique mm-hmm. parce que tey les plus grandes villes au monde ñu koy def te pourtant nee nañ dakaar mooy capitale Sénégal di monde tamit mm-hmm. porte du monde mooy capitale du monde Dakar dafa placé mais lan moo tax ñun bu ñu waree def dara si loo xam ne dañ ciy wane suñu bokk muy jullit muy chrétien ñu ànd bokk def contre loolu tey nguur day teg sa kaw loxo wala ñu naan préfet bi da ko arrêté wala ay ministre de l'intérieur mais léegi dëkk yooyu di def ay manifestation pacifique ñoom xanaa ñoom luwaaye ak luwaaye àndul moo tax ma ne la Sénégal ku ma am ndey ku ma amul baay la mais nag mais ñun ñàkku ñu dara rek parce que yàlla lañu àndal ku am yàlla pertoo dara parce que kenn nekk fi ku dul yàlla yàlla amul intermédiaire fi nga toog sax mun nga ñaan suñu borom muy wax ak yow di déggante yow kookoy yàlla subhaanahu wa taala moo tax kenn moomul dara yàlla moom lépp mhm. su ko neexoon tey mu mabal waxuma àdduna bi de mabal Sénégal comme ni mu def dëkk yenn tremblement de mais yàlla na du fi am te yàlla na fi yéex te du fi musa am inchallah mais kon yàlla buy suturaal nit nag ñi nga xam ne ñoo dirigé naan dañuy njiite nañ mhm. suturaal doomu aadama yi bu mhm. Sénégal toll nañ foo xam ne temps yi Sénégal nu mu mel xoqatal bi ak nu mu mettee maare day taali maara day voilà métti na loolu comme ni nga ko waxee euh, mu nekk tamit actualité boo xam ne di ñaawul góor bu baax a baax la nga xam ne moom moo fa daal di xew foofu noonu ca Palestine comme ni nga ko waxee tantôt rupture bi nga xam ne waggoo ko mais ak li nga xam ne ñu ngi koy gis ñu koy teg ci kaw Ousmane Sonko est-ce que nga ne euh, bokkinam ci élection yi dina nekk loo xam ne lu leer la ak lu wóor la Ousmane Sonko bu bokkul kenn du bokk yàgg nañ leen wax ne kooku bu amul jàmm kenn doo am jàmm te kooku day am jàmm sénégalais yi dañuy am jàmm parce que kuy woote pacifique ak paix Mm-hmm. ak diine yàlla day ànd ak yow. mais képp kuy woote fitna ak buntu xal ay nit ak ay toroxal ay nit. Mm-hmm. seytaane mooy ànd ak yow te seytaane musul am dëgg ci kaw dëgg. is xam nga lu ma waxee. Mm-hmm. képp kuy woote pacifique. waay ak teraanga dëkk. ak kaaraange yàlla. waay ko sawaa dëkk kooku yàlla day ànd ak yow mais képp kuy wone fitna ak toroxal nit. Ah, ak noot doomu aadama ak rey nit. kooku si yaa ngi bokk si nguuru seytaane te doo musa am ndam xool ko si na xam tax ñuy wax tey ajuma la. ajjuma mm. la moo waral moo ajjuma mooy wareefu jullit mooy bisu jullit parce que ajjuma nee nañ. Mm-hmm. keroog yow man xiyam ah àdduna di tukki jour ajjuma la. te am na yonent yu bëri yoo xam ne ajjuma waral na si ñoom. te sax am na kon moo tax tey may wax dëgg. parce que tey da nga koy xool si Firawna. Mm-hmm. ana Firawna. ñun xam nga fekkee ñu firaaw na mm-hmm. mais bu dee yow borom diine nga wala nga jàng alxuraan di nga xam kuy firaaw na histoire même ñi nga xam ne du ñu jullit sax xam nañ koy firaw na mm-hmm. est ce xam ne mu ngi foofu mu tëdd mm-hmm. lépp ko gedd te moo doon woote buur bu gën a taaru si buur yi moo doon buur boo xam ne moom la yàlla firaaw na yàlla lu mu ko mayeen maye ko woon benn buur kon boobu njiiti duñ dara barki alxuraanu karim njiiti booy exemple ak ñoom ak Firawna sax nga xam da naan sax dangay ngay parce que yemuñu fii Firawna. ok na du seen morom sax te Firawna nag pourtant aka bëggoon yaayam. dëgg na Firawna aka bëggoon yaayam mais ñun suñu njiit yi parce que doomu boo buggee sa yaay. nga tourné gis sa mhm. mu am ay doom ay rak. keneen nga koy xoolee yaay jaamur bu am ay doom ak ay rak. parce ku si ne. bëggoo ñu laal sa rak bëggoo ñu laal sa yaay bëggoo ñu laal say frère parce que deret dafa fort. Mm-hmm. parce que tey boo xoolee suñu njiit yi di ko dalee njiit bi. ba si kaw ministère yi ba si ñoom juge yeeg procureur yi. ba si mm-hmm. commandant ak général bi. ba si policier yi ku si ne am ngaa famille ku si ne bu ñu ci defoon loolu nu ñu def ñun jàpp ñu dóor ñu ay lacrymogène wala takkal ñu ay monot. dóor la ay liif. Mm-hmm. yóbbu la police téye la fa cinq jours yóbbu la kaso tëj la fa. loolu doo nelaw soo amee mbokk bu ñu def loolu wala frère bu ñu nelaw loolu ñoom bu ñu xoolee loolu war nañ bàyyi di def loolu mm. wala ñu ne la tey sa rakk lañ dóor bal <laughs> boo yiñ dóor bal yàlla leen yàlla xare àjjana amiin amiin xam nga mm-hmm. kon boog moo tax ma ne nit soo toogee yow kese rek war nga xam ne àddina dara jaru fi dara soo yeewu fajar génn julli ba toog mm-hmm. foofu rek di nga yedd sa bopp wala nga dem géej toog benn côté di nga xam ne duniyaa du dara jarul dara mm-hmm. chaque chose à sa fin loo gis day jeex kon tolérance dafa am yërmande ni soo ñu yoree dara benn ASC wala benn structure wala benn kii nga ne dangay ngay diriger amoo yërmande. mënoo diriger dara mu baax. looloo dal suñu njiit yi parce que ñoom ay affaire la xam la la ñuy def affaire haine ay rancune. Hmm. loolu day yàq dëkk. day yàq dëkk. sa moromu sénégalais boo gisee. même bu dee ay bokkoo leen foo leen nekk sax soo amee tolof tolof. Mhm. ñëwul assister ko parce que sénégalais la. africain la doomu aadama la. ok mais doomu aadama am na fooy toll waroo ñaanal sax yéen nit yéen a sapaani. même bu dee sax noonu la. Mm-hmm. ok est-ce wala jàpp Ousmane Sonko rek dañ ko war a tëj wala dañ ko war a rey loolu dafa ñaaw. Mm-hmm. te Ousmane foo fekk Sénégal lay wax. néew lay wax te pourtant ñi nekk si nguur bi ñun ñëpp ay pauvre lañu woon comme ñun. mais yërmande pauvre yi ñoo tax tey ñu nekk ay Richard. Mm. tey nekk nañ ay Richard bugg nañ dal si kaw pauvre yooyu faral leen yàlla du ko mës a ànd. ok yonent bi sallallahu salaam fan la juddoo. sallallahu alayhi màkk. Mhm. ay nijaayam. ñoo ko sonaloon di ko dóor ay xeer bu mu jógee foofu après fu mu mujj doon yërmandeem mhm. moo waral ñu bari nu ñu lakk. te pourtant yonent bi sallallahu salaam Mohamed. Mhm. bu mu demee ba ñu toj bopp bi. ba yàlla yoonu Jibril dem si moom. ne ko yow moo xam ne lii ak lii ma wàccee ñaari montagne yi mhm. yonent bi saa salaam pourtant dafa dawal yërmande foofu moo tax ma ne la booy jiite te amoo yërmande doo dara boo dee jullit mhm. ah doo jaamu yàlla da doon ragal ba pare cuune ngay doon mhm. moo la tey jullit budul jaamu yàlla te ragaloo yàlla cuune ngay doon moo tax ma ne la ñun suñu njiit ñu si bari dañ koy loyoog suñu borom balaa ñoo dem ma wax la benn exemple ay mhm. feebar la ñuy am wala boo leen gisee sax da leen di yërëm ndax lan ñaaw téef xam nga ñaaw téef fan alalu mbooloo nga koy lekk wala yow ak say doom ñun dañoo sonn si loolu soxna si dëgg la ñun jàng nañ école bàyyi école mënuñu dem ndax famille pauvre dangay ngay doo dem dañ lay buntu xatal da ngay wax dëgg dañ lay jàpp tëj la léegi kon ñun lu ñu war a def nekk lan la war a nekk ay bàyyi ma naa la nootaange bu ëpp moo indi fipp. ok nootaange bu ëpp moo indi fipp. Mhm. te am na fipp yoo xam ne ñaanuñu ko yàlla. déedéet kon gars yi ñoom dañu a xoolaat seen bopp. Mhm. parce que àdduna dara saxul man mun naa toog fi wax ak yow génn. ñaan la yéex génn àdduna kenn mënu si dara. Mhm. mu sam benn frère bu may jaale sax bajaan. Paris la nekkoon magu Batika. bajaan borom baax la. yàlla na ko yàlla yërëm. borom baax la foo ko fekk lu baax. doon nekk ba kaaw bajaan. du yónnee xaalis di ñu ko jox ne ko joxal li diw diw diw lii. bari na ay kaamaan ñu ngi si town bi mais moom yàggul sax da ko doon def parce que moo tax ma ne la àdduna yàlla mooy ko lu ko neex si nit def ko. dëgg la est-ce que xam ne loo seen bopp. Mhm. di ko jaale bajaan sama frère. dëgg la xam Batika. Mhm. ak yaay mère bajaan sunu yaay la. Mhm. metti na nga am sa doom mu tukki ñu ne dafa feebar génn àddina tegoo ko bët. ñu ni la koor loolu dafa metti moo tax yàlla. kenn xamul. yàlla rek a xam. kon gars yi nañuy nañuy dawal booy yërmande dawal jeunesse bi yërmande parce que Sénégal jeunesse bi dafa dañoo sonn buy foo dem booy ñu ngi joob booy da leen gis ay cag-cag lañ yor chaque vendredi ñu policiers yi ay check point la ñuy teg. moo la ko tey chaque Friday dañuy teg ay check point da ngay naan check point yi pour lan. Hmm. jàpp booy yi cag-cag 2000 6000 francs 5000 mais boobu bu xos lu xam ne ay tutaw lay ut boo jàppee usuteeram. nga laaj ko ay loo xam ne 5000 francs wala bu amul nga yóbbu ko 12000 lay fay mais loolu pour lan après xaalis boobu fan lay jëm kenn du xam ñun du ñu wax doo kaas bu ñu la jàppee nga wax ñu mat patam patamee la jël kuute bi yóbbu la commissariat boo dafa loo ñu defeere la mais nu mu demee noonu nan la demee mais am lu yi ñoom war nañ xoolaat seen bopp ay rakk lañ ñoo ñuy def loolu ay seen booy lañ seen frère lañ mm-hmm. metti naa tey rek bu may julli juma am na vendredi bi amaan na vendredi bi amaan na. how many years ñu ngi koy dundu ok comme que nguur bee ñuy noot. Mm. ñoom tam ñu bugg ñu dogali. parce que ñun dañuy joob a sonn du ñu am dara gars yi duñ am ay millions léegi bu ñu jógee foofu ñu ñëw homme de looy takkale yow cag-cag wala nga war saret di business ñu tànc la nangu sa xaalis mm. mais Sénégal arnaque moo fi am yaay booy arnaque léegi yow loolu boo kaasee ñu ne yow waroo wax damay wax ba ilaa yow mu diini ok nobody stop me to talk. Mm-hmm. parce que I'm born in for the real talk. man si dëgg laa juddoo parce que dama judd ñu noddu samay nopp. tudduma Mouhamadou Lamine lañ ma tuddoo. ñu woowee alias Sookaana man Mouhamadou Lamine laa tudd sant jaata. Mm-hmm. first name bi mooy Sookaana ak mafia bi. xanaa ñu dóor maay koon. mais tant que maay fii. damay wax parce man li may wax yëpp du saaga. Mm-hmm. waxuma ay violence wala li di insulté. damay wax li ñuy dund ñun jeunesse bi. dëgg la. xam nga tax booy bëgg ma. foo tourné damay wax raay. man moo tax nguur mënu ma fay. benn nguur moo fay mu nguuru yàlla. ñoom Ousmane soo wax ñu topp leen du ay xaalis du ay ah ah. injustice. loolooy wareefu muslim yonent bi looloo doon xeex islam. Mhm. ok ànd ay saxaabaam. Mhm. ñoom Omar ñoom Yunus ay ñoom Yaquba. ay ñoom astaata koo xalaat Souleymane ku ne Abou Bakar te ñooñu doy ñu gaay sax fii ok kon ñoom nañu xoolaat seen bopp ñu nekk si kaw ok voilà mbokk na si continuer leen di liker li nga xam ne moom mooy vidéo bi ak di ko partager bu baax a baax a baax tey nag Sow Kandé lañ fi dalal di waxtaan ak moom eh, ci actualité yi ba léegi dañuy daal di continuer waxtaan bi mais dañuy ñëw ci mbirum parrainage yi parce que gis nga ne parrainage bi eh, door na bu yàgg mais eh, engouement bi mu war a am. ak dégg coow li nga xam ne war na koo am euh, gisaguñ ko te gis nañ tamit ñenn ñi ci ay candidat euh, ku ci mel ni Pape Djibril Fall Abdourahmane ak ñeneen ñi ngi kaas ci wàllu parrainage yooyu la nee nañ Ousmane Sonko par exemple am na 13 députés am na 26 députés assemblée nationale soxlawul li nga xam ne euh, moom mooy parrainage citoyen ñi nga xam ne ñoom ñooy nguur gi aussi ak ñeneen ñi nga xam ne am nañ am na député soxlawuñ li nga xam ne mooy parrainage citoyen mënu nañ bàyyi ñi nga xam ne amuñu euh, nombre député bu ñu soxla pour ñu dem ci askan wi maanaam dem nañ daal ba jàpp ne ñii ñoo leen xañ li nga xam ne mooy parrainage bi nan nga jàngatee loolu. xam la benn affaire. Mm-hmm. man xam duma politicien. dëgg la man politicien xam mbala politicien fa yàlla buy wax dëgg. Mm-hmm. mais am na yoo xam ne ay farafeñe yoo xam ne man bugguma sax wax seen wax. Mm-hmm. parce que am na ñoo xam du ñu ay jàmbaar bu ñu doon ay jàmbaar ah nañ fekk seen frère muy kaas si dëkk bi di wax si dëkk bi di dee si dëkk bi di ànd ak moom ñuy dem jeel comme ni ñuy reyee ñun. waaw am na ñoo xam ne du ñu ay du ñu ay te yàlla du def du ñu du ñu mës a doon dara farafeñe am ñoo xam ne ay farafeñe lañ. parce que dañuy gis cause dëgg duñu ci dem di dem ci cause naafeq hmm. kon ñooñu soxlawul ñox sax ñuy tudd Ousmane Sonko mooy li la wax comme li ngeen wax rek mooy li mu am yàlla moo ko teg. yàlla nag lu mu teg doomu aadama da koy nagul su dee yow wareefu jullit nga yow da nangu mm-hmm. da nangu mais ñii wax naan ay parents ñoo bëri Ousmane Sonko mais état bi ñaari député la am mm-hmm. du ñu wax loolu mm-hmm. mais si kan la ñuy dem ki nga xam ne yàlla mooy taal bu yàlla taal kooku sooy dem si moom di wax daal na nga koy yàq da koy gën a dooleel yàlla lu mu fonk si nit ak fonk si nit ak nam ko si nit yow booy wax fii ba suba di kaas da koy gën a dooleel ok Mamadou Lamine laa tudd ñu may woowee Sookaana mhm. si mbedd bi laa dëkk journaliste yi ma man lañ taamu ne mais dañuy bëgg di géem man chaque jour mhm. parce que dëgg laay wax loolu yàlla moo ko def mhm. la qu'est-ce pain laay jaay de pain nit ñi dañ fiy ñëw du mandee yàlla la kon kuy jéem a xeex nit ñi di ñëw fii da ngay soxla sa bopp yàlla la li may namm di jaay tamit du kenn suñu borom la moo noon nit nag boo demee ba suñu borom dénk la daala nga siy puukare wala nga siy tiitaroo mhm. yàlla koy jël parce yàlla day dénkaane te yàlla nañu yàlla musal si naawu te yàlla nañu yàlla musal si naafek yàlla nañu yàlla musal si farafeñe yàlla nañu yàlla dolli ñuy gën a doon ay jullit di gën a wax dëgg di gën a def dëgg mhm. est sa que xam ne lu wax mhm. parce que ñooñu suñuy def loolu rek dañuy sonn ok parce nit bul ko xool lu mu am rek nga ne kii lii yàlla ah, moo xool ñoom ñaar ne kii lay teg lii man how long man sama broder yi ku ne ñu ngi dugg ay États-Unis fu ne te ñun boo ñu fekkee si lu kaana la ñuy dund chaque jour yaa naan soo lan moo tax du dem États-Unis lan moo tax soo du dem Nicaragua fa yàlla lu mu namm si nit. mooy am lu mu namul si nit du am. ñun foofu lañ ko jàppee life. life is easy when you do peace mooy àddina dafa yomb sooy def jàmm. life is not easy if you don't do peace. life bu méttee si yow day fekk yow dundoo peace. parce que tey sa mel na gaañaan dem na seet man dama war a dem seet par force jealous never am naa a jealous people am naa a jealous boy du ma siisu man sa sa mel gaañaan ñëw na yor torok kat kat di jëm fët ah dama koy ñaanal gudd fan ak wér yaram ànd na moo demee noonu nit dangay nekk xas la man am in the hood mooy si mbedd bi am in the street man mbedd bi rek laa nekk sama gàlle soo fa demee si ginnaaw la fii mhm. lépp fa man du mu fa sax nekk. how long how many years sama gal ay vingt ans ngi nii du mu fa fanaan parce que chambre yaa ngi fa du mhm. sama braare yi ñu ngi Babylone samay rak. Mhm. mais foo mu fekk maa ngi awut parce que man li ma yàlla bindee la man chaque jour si néew di doole yi laay nekk. man dix francs bu ma am wala dërëm maa ngi bokk ak abo yi. Mhm. boo ñëwee fii booy dañ fii fees dell xale ñoo xam ne magee naa la ay vingt ans mais mentalité bi laa leen jox da ngay grand bi grand bi respecté soo toogee bu la grand yónnee da ngay dem fu la neex faral yaa xam doo fi ñëw mu bañ lay toroxal parce que ñun dañoo respecté nit doomu aadama nit noonu nga war a def. nit ki li ko yàlla may nag de ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram mais bul siisu. Mhm. mais Sénégal nag dafa bëri ay jalouse Sénégal dafa bëri ay farafeñe yenn booy gentleman du ñu ay gentleman dañuy ñoo di gentleman du ñu ay gentleman. Mm. bëreetul ay jàmbaar. ok xam li mu la wax ndax lan temps bi dafa metti noot nañ leen mënatuñu. cuub nañ seen drapeau. Mhm. ndax lan ay problème weccit te weccit yooyu yëpp fa yàlla la nit soo gëmee sa bopp balaa ngaa dee sa wërsëg da nga koy jot. ok parce que life is like that. ok if you don't believe you don't belong. Mhm. life moo demee noonu. ok voilà ba léegi ñu kon ne waxtaan bi mais n'est-ce pas du dégg nga euh, xaru ki nga xam ne moom mooy Adji Sarr nekk accusatrice su Ousmane Sonko ci mbirum Sweet Beauté moom. moom mi nga waxoon ne ay Ousmane Sonko daf ko violé ak menace de mort euh, tribunal daal di koy sital ci loolu yëpp ñu gis ni récemment ñu ne Adji Sarr dafa bëggoon ni xaru euh, nan nga gisee li ni mel ak situation bi nga xam ne réewu Sénégal euh, dugg na ko ci affaire Sweet Beauté bi. wax naa la benn affaire boo fàttali gis nga doomu aadama. Mhm. yàlla moo ko sàkk. yaayam jur ko ëmb ko juróom-ñetti weer xaw ma ñeent. Mhm. moo nit soo ko gisee. xamoo ko sax dee koy ñaanal piis sànkantuma nag ñu lay yónni wala di la santaas nga ne dañuy jéem a sànku doomu aadama nit kooku xamoon nuñ ko juree xamoon na la dafa yaayam indi ko si àdduna bi. Mm-hmm. soo may wax ay waxu aji saar sax dum la bëgg tontu si loolu. lu tax parce que man ya bëgguma wax si ñooñu. parce que jigéen bëgguma di wax di yàq ay deru jigéen wala affaire yooyu parce que am naa yaay am ay mag yi jigéen am ay rakk yi jigéen am ay jarbaat. Mm-hmm. moo tax mu gel boobu moo boobu du ma bëgg di wax ak moom. même bu dee dafa bëggoon xaru sax doomu aadama la. mbindeef la parce que xaru xam na lu yàlla wax si xaru. ni xaru sax yàlla du la seetaan. Mm-hmm. noonu de. Mm-hmm. dee yàlla tuddul di nga def lu ne doo dee. Mm-hmm. moo tax aji saar boobu bëgguma siy sori sax. mooy li mu la wax damaa fonk jigéen ñi man. non respecté jigéen ñi. ok damay bili bu mel nii quoi parce que yonent bi salaay salaam ñetti yoon la wax yaay. Mm-hmm. kon boobu damay fonk jigéen. ok te jigéen yërmande yàlla si jigéen la ko wàcce mm-hmm. xam ne mu la soo gis jigéen saxaaba wala jigéen yonant wala jigéen buy jiite kon boobu nekkul moom moo tax ma naan damay yàq deru jigéen ñi. du aji saar boobu aji saar boobu daal sunu borom lañ koy dénk rek yàlla moom mooy àtte dëgg. Mm-hmm. yal na ko yàlla àtteeg Ousmane Sonko ak booy ñu boom yëpp. mais ñu gis ne kii mu àndal di Gabriel Kane mi ngi naan ko yow heure boo bëggee euh, nekkaat buzz wala heure bu bëggee heure boo soxlawee xaalis ci ngay àdduna dama bëgg xaru dama doon xaru wala dama naroon a xaru gi li ni mel mu nekk daal on dirait que ne dem nañ ba ñoom ñaar ñu ngi yàqante ci loo xam ne amaana ñoom ñoo ci àndoon moo ci jàppale aji Sarr euh, ci mbirum Sweet Beauté bi nga xam ne jamono ci daal dinay jeex tàkk Gabriel la ñoo yem same moo tax ñoom nañ leen bàyyi ak suñu borom rek mhm. I don't want to talk for this kind of mooy bëgguma wax si genre jigéen yooyu rek parce que da wax loo xam ne du yoon sa ay jigéen lañ parce que am naa ay sœur xam na mu la wax mais dañ leen bàyyi ak suñu borom yàlla moo nekk fépp dangay def dëgg am dëgg boo deful dëgg rek da koy gis mhm. te balaa ngaa dee lu ne ngay gis mhm. moom nañ leen bàyyi ak suñu borom voilà nañ leen bàyyeeg suñu borom mais ci mbirum Aziz Ndiaye bi nag. ak Aziz Ndiaye euh, mi nga xam ne promoteur la ak soxnaam si di euh, Aïssa Rasoul Ñing ak beneen soxnaam si nga xam ne Miss Ndiaye ki ñu wax que ne dafa daal di euh, fay daal di dem ndax lan ndax Aziz kii mu takk ak li ni mel maanaam polémique bi bëri na ci loolu ñu bëri ñu ngi naan ko Miss yow ñaareel nga woon da nga fekk ji woon Euh, kenn ki suñu borom wee di daal di koy jël kon yow bu la jigéen fekk si waatee rek mën naa ne da nga war a toog nga muñ kook li ni mel polémique bi daal bëri na lool euh, ci côté Aziz Ndiaye. man am na géem yoo xam ne ma wax la soxna si am a real nigga am laa su ma neexee moom sama bopp. man góor yàlla laa am na yenn géem yoo xam ne sinon ma style du sama géem am na yenn polémique yoo xam ne sama yoon nekku si du si dugg sax. Aziz Ndiaye xam naa ko mooy def promoteur. Mhm. moom dafa takk soxna da ngay dégg gaa yi di wax. Mhm. man xam la laay wax. Mhm. xam ña laay ñaar xale yu góor yi nga xam ne dañuy takk soxna. ne dañu gis xale bu jigéen bi xool ko ba mu neex takk ko dem jël ko def si moom lu ne indi ko gàlle jëlee ko kër papaam ak yaayam. ñun laay waxal. jigéen dafa foor gis nañ fi lu ne jëlee fa frais ay millions indi ko du yàgg fase ko wala am moom doom fase ko. loolu xemem maa ni laa ñii di xemem parce que jigéen yi jigéen dañ ko war a yërëm jigéen soo ko takkee sax indi ko ba sa kër sax même su demee ba dëgër boobu am lu muy sax am na nooy wax ak moom ba yàlla may leen doom rek doom nawle la parce que yàlla dafa fonk takk mhm. waaw surtout góor yi nga xam dañuy takk di fase di takk di fase mhm. nañu xoolaat seen bopp di ñaan xale yi jigéen ñi tamit ñuy muñ mhm. di muñ parce que jigéen boo muñee da ngay am lu ne muñal rek amul ay alal ñaan leen jëkkër ju leen bëgg te baax moo gën jëkkër yoo xam ne dafa am alal te bëggu la man xale yu jigéen ñi laay waxal parce que jigéen ñi dañoo bari mhm. dañuy ñaan am jëkkër yoo xam ne ay góor yàlla lañ dañoo gëm seen diine bu ñu ne di leen yërmande parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax sa jabar yaay avocat am yaay juge am soo ko gisee bu meree sax danga war a bég mhm. waroo yeew di fu ñaaral wala di ah sa ah. jabar loolu la yonent bi wax moom comme kaaw ñoom Aziz Ndiaye man du ma dugg si géem yooyu su dee dafa takk soxna tamit teg ko si saraatal musaxim yàlla na ko yàlla jàppaleem ak soxnaam su dee soxna si tamit da ko bëgg si saraatal musaxim yàlla na yàlla boole ba ñu am ay doom yu barke. parce que man loolu sama wareef jullit parce que say jaamur. soo ko defarul bul yàq. ok gars yi damay dégg Aziz Ndiaye maye na lii maye na lee maye na lee jabar dafa foor. lu la neex defal. mais ñi ngi wax que ne awam bi dafa daal di fay. loolu yëpp. man it's normal life it's I don't a talk this xam la bëgguma si wax. parce sa man sama yoon nekku si. man daal lu may def mooy di ñaanal ko moom. Mhm. yàlla ak jabaram. ak aawam ak ñaaralam ak ñetteelam ba ñeent yàlla wax. <laughs> yàlla boole leen moom moo leen takk. Mhm. ñu dund siraatal mustaqiim ba am si ay bant. tuddee leen ay Mohamed ay abu Aboubacar ay Yunus ak loolu parce que loolu la ñuy ñaanal nit. moo tax say jàmbur man mënoo si dugg. man lu may lancé xam mooy lan. Mhm. man parcelle laa dëkk laa juddoo. dëgg si booy parcelles yi laa wax. mooy un ba vingt soo foo ko xool deretu parcelle la. dëgg la su ma génnee àddina sax booy PAM ay jàpp ñooy jiitu sama gàlle ñooy jël sama koor ñii di Sikar. ñii di say siir waa kër Baye Laay waa kër instant am nu Mariama parce que soo ñëpp la bëgg. dëgg la mais dama leen di ñaan yàlla booy parcel yi. ñu mm-hmm. doon benn nañ bàyyi seen fitna yi ñoo seen biir. parce que ba 26 2 4 8 5 ñëpp benn lañ. ok 10 11 12 13 14 19 ñëpp benn lañ. Mhm. nawetaan neex na mais nawetaan bu mu jar yenn yi parce que booy dañu war a am conscience. Mhm. taa nawetaan am na fi ñu ne waa. waaw effectivement ma ak waa. Mhm. renaissance ak dental bi ah. non waa cant bi. ak waa beneen ASC bi xaw ma. Kamben xaw ma nu mu tuddati daal parce que man dama bàyyi nawetaan. xam tax ma bàyyi nawetaan. lu tax nawetaan lu am xeex fu mu am ñu ne soo. moo ko dirigé ok. depuis 2005 laa bàyyi nawetaan benn match Santian sama koñ fii. Mhm. ak waa 20. dental sama koñ la sax dental. dem final ñu fubal. match bi mhm. jaaxasoo man bi ñu demee série laa ñibbi. Mhm. mais booy dañoo xeex xeex yu metti ma yeew ñu indil ma ay 20 plainte. ah waaw ay 20 plainte indil lañ ma ko plainte bu ne sookaan lañ ci def. ne man maa diriger booy ñu yàq oto yi agressé fu ne ndax weer duma mais yàlla day suturaal koo xam ne day suturaal nit. Mm-hmm. man yàlla daf may suturaal parce que foo mu fekk damay suturaal nit parce que man foo mu fekk doomu aadama bi lu baax laa ko yéene. ok ñu ma plainte yi ma ne ah ñu wax euh, ma dem police ma ne lim la wax rek policier yi bi ñuy xeex ak booy ñu ma fekk ñu ma toog sama kees. dama soo sa booy la ñoo nekk fee di xeex man leen man ñibbi naa bu yàgg xaw ma yooyu xam weex dunk bi ma demee commissariat. ma ñëw toog ñi may indil plainte yi paa yëpp kenn xamul kuy soo sookaana ndax dégg sookaana rek ku si commissaire bi laaj ana sookaana nii la ñuy def gisuñu ko xamuñu ko te maa ngi toog seen biir. Mm. commissaire bi ne leen yéen da ngeen fekk doomu aadama mu am tur doomu jaamul ngeen ne moo def lii moo jiite lii. léegi dama leen di jàpp si yoon parce que lii ngeen def ak lii damay laaj sookaana dama sooloo paa paay loo leen defoon ñii man leen ñii lu mu leen def samay papa lañ bàyyi leen ñu ñibbi dañoo xamul rek moo tax man noonu laa moo fa laa bàyyi nawetaan moo tax keroog li am terrain fii booy lakk gason bi ak affaire yooyu noonu. ñu metti parce ñun parcelle lañ am parcelle ñaata année amuñu stade booy nañ xoolaat seen bopp yéen ñi jaru ko seen nawetaan coupe boo ko jëlee 2 millions sax doo ko si am. 1 mm. million sax doo ko am man fubal naa nawetaan kade fubal senior man lu ne du naax si nawetaan est-ce que xam am na loo xam ne amatul. Mm-hmm. dafa jeex. ok est-ce que moo tax may ñaax booy parcel yi ñoom ñëpp benn lañ ñooy ànd ñooy géej ñooy dem fu ne. kon bu leen dara jaral yéen yi ba pare nag di wax si président zone bi. Mhm. parce que président zone mooy jiite zone bi lu am. moom la lu amul moom la. président zone bu dee mu may dégg moom na xoolaat boppam parce que nawetaan bi ma déggee nawetaan ba léegi damay ñëw booy dégg ñu naan ay day xeex xeex nay dem mooy jiite nay dem fan intérieur xaw ma fu ñuy wax. Mhm. dem jëlee homme de tenue lañ wax. fay leen li leen war a quota bi ñëw taxaw sécurité. kon yenn yi du am. Mhm. nee nañ faut mieux prévenir que essayer de guérir. que guérir fagaru moo gën faju dëgg la est président bi di ko ñaaxaat mu xool lu muy def bu baax est la parce que parcelle la. Mhm. est ce que la parce booy parcelles yi am na fu ñu toll dañoo bari. kon reyante seen biir yooyu yàlla nañ si yàlla musal. ok est ce que xam la mhm. fépp rek si nawetaan si Sénégal fépp. na gars yi xoolaat seen bopp. nawetaan jarul yenn yi. est la day ay vacances la rek du egg du jeex te doo si am dara booy nag maa leen di ñaanal gudd fan ak wér gu yaram. Mhm. di ñaanal booy jeunesse bi gudd fan ak wér gu yaram. parce que soo man jeunesse bi laa fi nekkal parce que man si jeunesse bi laa bokk man képp ku yërëm néew di doole yi yërëm naa la bëgg naa la. Mhm. képp kuy taxaw pauvre yi ak ñuy dund injustice. maa ngi sa ginnaaw. sama booy nekk si jeel bi nag maa leen di ñaanal ñoom ñëpp yàlla def ñu bàyyi leen si jàmm ñu ñëw si jàmm parce que kenn nekku si ay hors ay manifestation lañ leen jàppee te manifestation dafa war nit. ok Sénégal da ngay génn manifester pacifiste ñu jàpp la tëj la. ñu ngi si biir bari nañ fa sama benn gaañ temps la génn nit dof ñoo nekkoon. bari nañ fa ay animal jim ay ñoom Abdou Karim xul ak bari nañ. gars nañ leen bàyyi ñu ñibbisi. defuñu dara. gars yi ñu ngi si temps dóor ay milliards dóor ay millions. gis nañ fa ay exemple bu nee te ñu ngi circulé ba léegi kon gars yi nañu bàyyi nit ñi ñu nekk si jàmm di lancer waat ñoom autorité yi. seen kàddu wala seen àpp bu jeexee ñu dem Sénégal kenn moomu ko buñ fi indi loo xam ne musu fi am. parce que képp ku ñoo di fitna si dëkk bi. Mm. sa kaw lay këpp. nañu bàyyi Sénégal si jàmm ñu nekk si jàmm nañu bàyyi sénégalais yi nekk si jàmm ñu nekk si jàmm Sénégal sonn nañ. Sénégal sonn nañ gisoo ni may ñàkkee parce que li may wax dafa ma metti mm-hmm. parce que ñaanuma yàlla ñuy dund yenn affaire yoo xam ne dund nañ ko gars yi nañu xaar. ba élection jot yàlla bu tuddee kuy doon président ñu jox ko mu doon président. ñëpp ñu war a bokk dañuy bokk. kenn moomul Sénégal muy sam papa ak papa keneen ak yaay keneen. voilà di ñaanal nag yéen journalistes yi. Mhm. ngeen def seen liggéey. nañ bàyyi journal journalistes yi ñu ngi leen di rey fële. Gaza te ñu ngi gis ay bomb ay pistolet dawuñu ndax seen dëkk. Mhm. te yéen Sénégal nañ leen bàyyi ñu ngeen liggéey seen liggéey. Mhm. muy ku yor karangeet xawma communication ala ku yor karanga police ak gendarme. Mhm. na xoolaat bu baax ordre yi muy jox. parce que li ñu defoon bee passé du ñu ko defati de. du ñu dóor ay bal di rey suñuy frères yooyu jeex na de. Sénégal nag dëkku diine la. Mhm. Sénégal du dëkku lay. dañ bàyyi loolu dëkku diine la parce que julit ak chrétien fi am. voilà julit ak chrétien du diine. ah christianisme ak musulman fi am. Mhm. kon gars yi ñu jéem a def seen parparloo yooyu di ñaanal kilifa diine yeeg ñëpp. di ñëpp. waaw yàlla yàlla def jàmm yàlla yàlla def jàmm Ousmane Sonko fu mu nekk yàlla na ko yàlla may ndam mhm. yàlla na ko yàlla wëral ba mu dem seeti ay jabaram ak ay yaayam mhm. parce que fu mu ne noonu sonn na kon boog ñoom nu ñuy ñaanalee ñooñu ñoom bëgg nañ ñu leen ñaanal loolu te dañ leen koy ñaanal kon boog nañ jiitalu rafet ñun ñu egg si leen su rafet mhm. rang muy gaaw. merci beaucoup so ma lay jaajëfal bu baax a baax mbégte la woon eh, di ànd ak yow ci bile waxtaan di la jaajëfal di la mooy yoonu mooy li yàgg wax rek man moom damay ñaanal yaay yaay dafa foor mm-hmm. ñaanal yaay yëpp waaw mm-hmm. pray all mama in the world mm-hmm. to my side Sénégal maa ngi ñaanal bépp yaay waaw di ñaanal sama yaay daal sa yaay dañoo sonn di ñaanal booy yi nga xam ne ñoo jël yoonu Nicaragua bi ñoom ñëpp yàlla def leen ñu dem si jàmm ba dugg seen dream United States di ñaanal booy yi nga xam ne si gaal yi lañ jaar tamit ba ñoom ñu génn fi ñu nekk noonu yàlla jaarale leen fu ñu bëgg. parce que ñaanal ñu kenn muy muy dem si géej wala affaire yooyu noonu quoi. voilà mais di ñaanal booy nga xam ne ñoo nekk si jéel ñu génn. di ñaanal ñu tëdd si hôpital yi. est ce que am na di ñu nekk si tali chauffeur chauffeur yëpp mépp chauffeur. yàlla dafa la jàmm boo saayee dem. Mhm. accident du la war. est ce que am di ñaanal sama booy cag-cag yi sonn nañ. voilà li ma doon wax sànq. di ñaanal daal képp ku yor société yi nga yërëm sénégalais yi. Mhm. bëgg sénégalais am dara. yàlla tam may la jàmm est-ce que am na la société boo xam ne yaa ngi yërëm di doole yàlla teg la si yoonu jàmm ba nga metti na daal dëgg la waaw man loolu surtout yéen journalistes yi nag mm-hmm. amuñu seen fay mm-hmm. waaw li ngeen di def bu leen ko mu a ragal di dugg si banlieue bi di xool fu mu méttee mm-hmm. loolooy géemu journaliste mais nekkul faa milieu bu haay bi da nga dugg fu muy méttee si wóot bi si nga xam Sénégal lu ñuy dund yéen yàlla na yàlla taxaw incha allah may leen ay matukaay yoo xam ne ba ngeen am seen télé bopp am seen lépp bopp ay caméra yoo xam ne mooy loolu Mm-hmm. waaw sa liggéey mooy loolu piis merci beaucoup so ma lay jaajëfal bu baax a baax dégg ngeen bu baax la nga xam ne ah, daal dina koy wax moom Sokane min ngeen ko bu baax a baax di ko jaajëfal di jaajëfal aussi Moussa nekkoon ci caméra bi tey moom laa àndaloon di ko jaajëfal bu baax a baax u nekk ci réalisation bi ak toute l'équipe de 313 euh, digital ak suñu internet yi nga xam ne ñu ngi doon ñëw bàyyi xel euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen joxaat dig daje ndikk ci kanam tuuti ak yeneen i information waaye nag bu leen fàtte à chaque fois di abonné sur 313 euh, digital suite des programmes. waaw mhm, mhm. maa ngi fii nag si salon sama salon sama benn sœur. waaw ah, jigéenu Sénégal li lañ xam créer emploi. Mhm. woo seen moromu jigéen ñi jàppale leen. kii sama sœur la Ramatulaay la. waa moom moo fi nekk Sophie Diallo. yaa ma gën a xam képp ku bëggul ay stress ay léttu ay affaire yëpp. soo ñëwee fii si parcelle bi unité 19. waaw boo ñëwee ba si soo kaana rek boo laajtee salon Rama rek. di fi ñëw gis parce que lépp la ñuy def ñu def ay rasta def ay comme xale yu jigéen daal lépp lu ñu bëgg ñooy bañ mm-hmm. ay pellicule manicule tout am na fi rama daal suñu sœur la du ko ñaanal gudd fan ak yér wér gu yaram moo borom këram Assane Ndiaye parce que jàmbaar la daal jigéen du mun góor la foo ko fekk mu ngi si liggéey moom ay ñoom ramatulaay ramatulaay moom ñëpp xam nañ ko ay mm-hmm. Marie Pierre rakam ñoom ñëpp daal yàlla na yàlla taxaw yokk salon bi may leen gudd fan ak wér gu yaram rang